ak sama jumeau bi sama xarit sama seex sama doomu ndey. sa avocat. sama avocat. kan ñëw na. Euh, ah, euh, ah waaw waaw. Ah, soxna Altine ah, soxna Altine macha allah. Diagne Diagne Diagne Diagne Diagne. ah. Diagne yal na yàlla defal la jàmm. tas ak nag monsieur le maire bu Guédiawaye ñëw. waaw kii mooy monsieur le maire bu Guédiawaye. ah macha allah <laughs> macha allah. madame Diop nuyul ñu ko. tey daal mën ngeen. mbay toogal mbay ñu eggali. waaw toogal ñu eggali waaw waaw. waaw ko kontaan nañu waay. madame Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaye ne ko merci beaucoup kontaan nañ ci moom. sama mag mère la sama jumeau mère la sama xarit mère la. waa Njañ Diop xanaa Njañ. waaw moom Njañ day moom vraiment moom dafa mérité. Ah, ñu félicité ko. ah waaw ñu félicité ko. parce que. moom. Mhm. vraiment même bu dee sax. Mhm. dafa nekk ci pouvoir bi tamit. Mhm. ñëpp gis nañu ci xeex bi mu nekkoon. waaw galgal ñoom seen yoon. yàlla moom alaaji. moo ne ci njàmbaarte gu ma sëkk. waaw gannaaw bu ñu nuyoo ñëpp daal. ci xamal ñëpp rek ne yàlla mooy joxe nguur. dëgg la. waaw kenn daal mel na ni alaaji dee rek. démb dama dem ci Masor Moussa boobu gendarmerie magam dafa làqu démb. wallaay waaw ñu dem ci euh, ñu dem ci enterrement bi. ndeysaan fekk fa euh, colonel euh, Mbeng mu nekkoon fii section de recherche. Hmm, ndeysaan waaw fekk fa colonel Ndaw. colonel Ndaw Ndaw nekkoon gendarmerie Abdoul Aziz Ndaw hmm. waaw fekk fa kilifa yu bari. mais ñu hmm. ngi dégg noonu ndeysaan ki doon jottali waxu imam bi. mu ne kenn yaa tuusul. alaaji mm-hmm. ba tax rek yàlla daal xool na ne da nga yaafus mu ne yow dinaa la rey kenn tamit amul doole wala kattan wala wala dëgër mm-hmm. wala naan dama am fulla ak moo tax borom bi bàyyi ma fi mm-hmm. waaw bu ko defee nag nguur tam noonu rek la dëgg la yàgg nañ fee nettali histoire yonent yàlla Moussa nit ñi di rey wallaahi waaye yonent yàlla Yuusufa tamit gis nga ko jóge ci kaso buur bi am lu mu gént waaw bu ko defee nag expliquer buur bi géntam googu bu ñu neexee ñu ne looloo ko soppi def ko buur yàlla moom mooy xool lu ko neex ko ci jàmm mhm. waaw njang joom ñu ngi koy féliciter di féliciter tous les candidats mhm. pouvoir comme opposition ñi nga xam ne dañoo am ak ñi amul ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mhm. xam loolu moom yàlla moom moom moo ko dogal waaw ci jàmm ji rek ñu xam ne noonu la man nag moom alaaji waaw waaw ci kër gi nag ginnaaw waajur yi nga xam ne keroog ba mbir mi amee. dem naa siyaare leen. muy suma waajuru góor. ak suma waajuru jigéen. ci seeni xablu. waaw ñaanal leen yàlla yàlla yokk seenug leer. yàlla yàlla nangu. xare leen àjjana. waaye ñaanal tam képp koo xam ne rek. Mhm. Euh, da nekkoon ci mbir mi. ci diggante bi. Mhm. nga làqu. Mhm. mu mel ni soxna Sadiya madame Aydara. dëkk fii ci HLM Paris waaw sonnoon ci mbir mi lool. waaw bu ko defee ak ajaratu bii nga ja sama yaay. waaw bi lay ndeysaan. keroog bi mbir mi amee waaw waaw waaw mag ja jooy keroog liggéey na ci waaw penn ja daa jooy eh waay liggéey na te ku likoon doo ko fekke du ko waaw liggéey na ci yàlla moom bi moom xam nga moom bu ko defee nag sant tamit sant rek coalition bi nga xam ne ñooñu porté woon muy waa yeewee askan wi mhm. sant leen gërëm leen ak alaaji mhm. parce que wax naa ko TFM nee naa leen man mouvement dong laa yor ñoom ñu yor parti mhm. dégg waaw bu ko defee nag ñu jël la jiital la. Mm-hmm. gars yi dàqoo leen jàng. ëppoo leen expérience. Mm-hmm. ëppoo leen i magoo leen. Mm-hmm. ñu yor parti nga yor mouvement. ñu ne la kaa ñu jiital la. kon ñooñu kenn mënu leen a fay. mooy coalition waaye ca bopp ba ca géejawaay nag. di El Hadj Malick Gakou. El Hadj Malick Gakou. waaw waaw El Hadj dem na ca. ay otoom dem ca. coonoom xelam xelam. waaw ko defee. moom ca fajar la xamal waa parti am ne ñun amuñu candidat ville. Mm-hmm. Ahmed mooy suñu candidat. Mm-hmm. waaw bu ko defee nag ñu sant ñoom Khalifa Sall ak sant ñëpp. Mm-hmm. waaye sant tamit. waa kër gi ma toog. di D-Média. waaw cooli nag ñoo te D-Média nag buñ ko tuddee alaaji. dañoo jiital kilifa gi. waaw ndax xëy na waaw moom mi fi dajale. di Bougane Gueye Dany ma koy delloo njukkal. ko sant. di ko gërëm bu wér. position politique alaaji dama ne Mame Mbaye Niang. baayam. waaw bokkul Benno Bokk Yaakaar. waaw dafa am parti boppam. te doom jaa nga Benno. kere dem na sax ci liste yi Sénégal 35. waaw ma ne ñun suñu tëddee liste Dakar. waaw Barthélemy Dias. waaw parti socialiste na yeewi askan wi baayam ma nga Benno Bokk Yaakaar. waaw Ndella Madior Diouf. Mhm. baayam ma nga Benno ma nga wàllu Sénégal ci opposition. waaw bu ko defee nag. Mm-hmm. comme que ñooñu moom ñoo fàqee ci. Mm-hmm. ñi leen indi. Mm-hmm. te bokkuñ fañ ne. waaw waxuntuma la ak leneen. waaye nag. li ma lii ak moom dafa mujj dem nag ba xaw a sax nag laal deret nag. waaw kon politique du ko yàq. ba tax nag lay dëgg ma sant ko nag. waaw sant ko nag. sant ko nag alaaji nag. lay ndeysaan sant nag bugaan ngay dani nag. waaye lii rafet na waay. rafet na waay sant nag. bugaan ngay dani nag fii la ñuy sant nag bugaan ngay dani nag parce que. rajo bi ak télé bi fii lay liggéey. Mhm. dañ naan Ameth soxlawul moom ay affiche koñ boo jaar nit ñi ne waa koñ bee. Mhm. kaay leen Ameth yegsi na. Ameth yegsi jaaruma ci benn koñ bañ ne. waa mais gars kii mooy kan ci gars yi. kabar ah, nag. télévision bi nag Mambay. Mhm. joué na ci nag. télévision bi dama ne joué na ci. TFM laa ou mhm. bien télé. Mhm. waaye fii nag ci dëgg-dëgg nag. Mhm. laa def lu ëpp fukki atu yàlla. wallaay 2011 laa fi tàmbali. ñu tàmbali nag bi dara nekkul dara. quotidien amu fi. télé amu fi. site amu fi. mais num rajo fi ñëwoon ma fekk leen fi yéen ak ñoom Mansour. benn rajo ak ñoom Sumer. tundung waaw benn rajo fi waaw ñuy góorgóorlu ba lépp nag fekkuñu fi. Ah. waaw kon ndam li des médias daf ci am ci pour pourcentage yi daf ci am waaw waaw candidat yeewi askan wi géejawaay des médias ko jaay mm-hmm. te des médias googu nag ku ko jiite waaw buggaan ngay dani la tudd ngay maam góor maa ngi koy sant di ko gërëm ko ñaanal yàlla yàlla gën ko ay ak ay soxnaam mm-hmm. yàlla bàyyi ko fi mu gudd fan amiin loolu gay fekkee njëriñu njabootam gi yëpp amiin yàlla balaa amiin barki yonent bi alayhi salaam amiin yàlla balaa keroog ba ma gañee waaw waaw na ma seeti jee sama waajur yi. asalaamaaleykum mhm. wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa eh. ngi xaw ma. Cheikh. Saare Mbiri Cheikh Saare Mbiri. nekk moom Aja. nekkatul mère imagination wala virtuelle de. mère dëggantaan vrai. pire. dégg nga loolu Alaaji. waaw. waaw bu ko defee nag. Mhm. ci tukki lañ ñëwoon rek. ñëw barki démb rek ñëw fi tey. Mhm. waaye moom. ci kilifa yi nga xam ni. dañ leen a war a dem visiter. visiter am na ñoo xam ne ñoom ñooy ñëw. Mm-hmm. di la njukkeel ak di la di la di la di la nuyu. Mm-hmm. ak di la sargal. Mm-hmm. ak ñoo xam ne nag yaa war a dem ci ñoom nag. waaw am na ñoo xam ne nag yaa war a dem ci ñoom nag. waaw te moom nag ci ñooñu nga xam ne ñun dañ faa war a dem. ci lañu bokk dëgg dëgg fa yàlla ci lañ ci la bokk. kon moom Guèye waaw dama koo jaglelee. ndam li ni ma waxee ne. waaye yeewi askan wi xaw ma ku ñu déjee ndam li géejawaay mais man laa wax man personnellement man. waaw man Alaaji Malick Gakou laa ko déjee. Mm-hmm. waaye noonu ma ko ko déjee it. Mm-hmm. war naa koo mën a tamit déjee Bougane Gueye Dany mi. Mm-hmm. ñu nekk ñoom ñaar ñëpp. samay mag nekk sumay xarit. waaw ñu sant lool. waaw sant lool gërëm rek sant rek. sant rek sant rek sant. sant tamit nag suñu sëriñ ba suñu xarit ba sëñ Abdou Karim. lay ndeysaan ah, keroog dañoo def délégation nag dem fa. après kii. avant. avant ah, waaw waaw waaw waaw boobu. dem fa toog nga toog nga fa woo ma. yaa ma woo yaa ma woo ma Ba lay sa. Mhm. waaw lam fa waxit jarul sax mu si jaaraat ndax ñoom. Mhm. ñoom askan wi yëpp lañ ci nekkal. ñoom ay régulateurs sociaux lañu. ñoom dem ci ñoom sax naan leen. ñaanal ma ma gañe wala ñaanal di wàcc ma yéeg. Mhm. loolu sax ñun waruñu. waa da dem tàllal sa loxo rek la. waaye xam naa ne daal lam ñu waxoon daal ca la ne ba tey Mbàkke Balla Issa ko wax ah, koy ñaanal yàlla nag ñaanaat nañ fa ndigal nag comme nañ ñaanee woon ndigal pour dellu fa waaw te wax na ko jëwriñ maam làmp waaw bu ko defee jàppalaat nañu dat macha allah waaw samedi bii ñëw dañu dafa am ziar général waaw waaye euh, ginnaaw ziar général ba daal lañu ñu wutalaat bis pour ñu pour ñu dem fa dem fa seex waaw sant naa la lool sant naa la nag xam nga ñu fi liggéey danoo bari waaw. Mm-hmm. ñu liggéey kër gi bari nañu. Mm-hmm. sant nañ ñëpp commencé ko ca bobba mm-hmm. waaye day am ay nit yu jël seen téléphone bokk ci man. ne ma sa waay. woowal Mansour. neen yaa gore. sa waay. woowal Cheikh Sarr. sa waay sa doom jàng ciy jàpp de ma ne man dee déglootuma rajo. walaay ko. sa waay woowal Chumère. woote na fi ñetti yoon juloo. loolu nag bu mbooloo amee. ay nit ñoo xamante ni dañoo bokk ci yow naan la wóowal diw wóowal diw wóowal diw. Mm-hmm. waa diw moomu ci dëgg-dëgg nag defaral na la. Mm-hmm. te alaaji. Cheikh mm-hmm. Sarr mii nag li ñu waxoon rek la noo waxaat ci moom. goro ngi nii garmee ngi nii. waaye la ma sama yaay waree saar rek yéen ay waalo waalo ngeen. yéen nii rek ngeen mën a mel. baax boo leen tilee doo leen bàyyi. waaw parce que liggéeyu presse moom média ñëpp xam nañ nu mu demee. Mhm. léegi-léegi ay kii yeeg. waaw waaw ñoo ànd waaye ci dëgg daal. ñoo ñii ma nekkal fii daal. Mhm. waaw sant nañ leen de waa géej waaye sant nañ leen. Mhm. lu ñu xewlee. ñëw ngeen fa ba yow barki démb alaaji yaa yaa fa ah. mujjee. ah man kat Mambay mi ak Yaas mi ci suñu congrès ba. ca démb ja dañoo ñëw ñëwaat ca congrès ba. Ah. waaw waaye loolu yëpp nag. Ah. kilifa gi ñu fi dajale la rek. wallaahi moom bugaan gee dani la nag. coow li nag. moom la nag. Ah, waaw la waaw. moom la moom la moom la moom daal sant la moom la. waa sant naa ko ak waaw waaw. Eh, ah, eh, président. <laughs> allo. waa président. oui oui ni ma wooyee. yow dégg ni ma wooyee. Ah. mais président maa ngi lay nuyu. waaw waaw sant bu baax maa ngi lay sant bu baax Dóor Dóor na nga def. Dóor Dóor. Eh, même téléphone am loolu la ci bind ah. non xam nga man eh? moom lay Dóor moom. man de man mais am naa deuxième dóor léegi nag. man de parce que léegi comme am na maire bu falu. <laughs> après bu ma dóoree ci yow damay daanu ji fële. man daal ay eh, am nga xam nga ñaari affaire la kii dóor la. Uh-huh. kii kii tës la. <laughs> man daal man daal li may njëkk a wax man li may njëkk a wax. alo ah, allo waaw président li may njëkk a wax balaa maa nuyoo. en tout cas tey moom boo yënguwul moom du baax moom. xam nga xam nga li naan la case de Birama brûle. non non non non non sa waay. instant bii que ni amoon yëpp nañu. waaye duñu ko nangu. waaye mani. Eh, DG. moom man man maa lay làkkal. directeur. ah mais xam nga xam xam nga lu ma jaaxal. waaw. mais euh, ci revue de bi. waaw. mais tey tey troisième mandat dañ koy tere rek nga wax. <laughs> mais mais mais gra grave <laughs> wuy ma <laughs> waaw nga xam nga dem si yàlla dubalees li mu doon def laa bañ a def ko waa dégg naa bu la ah, dégg naa bu daanaan ba pare. waaw dañ naan ko waaw lees lees wàcceel kii mu ne non non ay olof lañ il faut ma xaar photo. <laughs> xaar leen bañ photo ba ah, pare léegi nag léegi nag man nag ba nag laa fa a xaar photo ba laa fa man daal fi ne <laughs> comme comme comme li ñu waxante rek di nga amee victoire. waaw. Euh, la vie elle est de combat. mais yàlla mooy maye. alhamdulilah waaye nit ku nekk sañ nga sabablu. Mhm, ne lii war naa koo am. suñu borom mi nga xam ne mooy joxe. Mhm. jox na la. alhamdulilah. yàlla na nga ko muurloo. amiin euh, comme li ma la waxoon keroog rek. Euh, yàlla jox la kàttan. teg la ci njub. ba li nga bëgg yéene ko. nga mën ko sottal pour les populations de Guédiawaye. mais boo fàttali la ma la wax ak li ma la bind. dama ne la du ci yam. viser maire. Mhm. am nga ko. Mhm. viser jël député di nga ko am. viser leneen ak leneen. Mhm. nit yow yaay yemale sa bopp mais yàlla du tënk kenn. et loolu euh, moo am solo. et la ma la waxoon it gis naa ne yaa ngi ci. mooy fexe képp koo xëccoowool. nga tàllal ko loxo. liggéey ak moom parce que lenn dong moo la war a intéressé mooy victoire la ville de Guédiawaye mhm. et bi nga waxee ne da ngay ñëw liggéey mhm. j'ai dit voilà un produit de Bougane mhm. parce que comprendre na ne euh, akupal warta doon une fin en soi et li nga wax dafa am solo mhm. ñi ngay xëccool dañu leen fal ñoom mhm. mais yow da nga am liggéey mhm. liggéey boobu nga nekk nga jàpp ko ak sa fukki loxo gëm ko di ko dérouler yal na yàlla def nga am sa yëfi bopp parce que fii nga nekk sax man jàpp naa ne sa yëfi bopp nga ko jàppe parce que nii euh, ko borom téye noonu nga ko téye kon yàlla euh, na borom def yéene yëpp sotti amin yaa rabbal alamin et yéen wii yàlla moo mën a woyafal mu woyafalal la ko bu baax euh, je suis très à l'aise d'en parler parce que je sais que euh, fal bi nga xam ne def nañ la ko maire bu Guédiawaye maire par force <laughs> muy gëm-gëm yàlla sottal ko dafa am lu am solo lu ci am parce que dinga nga yegg ci banaliser pas dans le sens péjoratif mais wan ñi ñuy fal ne leen dañu leen yónni sant leen ngeen war a def donc donc gënu leen nit ñi ëpp leen dayo nit ñi c'est ëpp leen martaba nit ñi mhm. ëpp leen jàng nit ñi dañu mhm. leen sant mhm. population ñoo leen sant ngeen war a def bu ngeen defee baax na bu ngeen deful am nañu sañ-sañu kenn ku nekk ci ñun fekk leen fa ngeen toog jëli leen fi toog seen place def liggéey bi ñu leen waroon sant kon Euh, esprit ngëm sa bopp boobu nekk ci yow mhm. nañu ko yaatal ba kenn ku nekk mhm. am gëm-gëm googu mhm. mécanicien bi marchand ambulant bi magistrat bi menuisier bi enseignant bi ku ne xam ne da nga war a participer ci luy defar Sénégal et je crois que loolu yaa ngi ci mhm. yàlla na la yàlla euh, jàppale yàlla kattanal la ba yéen yi nga am sotti parce que sa victoire victoire u ay Aïdara victoire u des la mhm. victoire u Ahmed Aïdara victoire u Bougane mhm. la ay nit mën nañu bokk ndey ak baay duñu bokk euh, benn ëtt wala benn yoon bu ñu jaar mais li am solo mooy li ñu bëgg maak yow yëpp. Mhm. benn bëgg-bëgg bi la. mooy Sénégal mooy lu defar Sénégal. rek mhm. kese lu jëme Sénégal ci kanam. kese mhm. lu teggi jafe-jafe askan wi. kese te loolu képp ku ci participer man nga ko defal. yow la ko defal. sénégalais yi la ko defal. voilà. ah fas fas bu ñu xëyee jox ko ngooñ. ngoon ngoon ñu jox ko repas. dañu ñaari xont yu bokkul la waaye kiy joxe ku ne da ngaa bëgg mu suur rek. Mm-hmm. absolument.